jaajëfal leen ci bi ngeen di ànd ak ñun mbokku internet yu 5M TV Sénégal jàngeen jëf ci teewlu bi. mbokk internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bi lay Sonko mu mel ni waajuram bu jigéen daal dinay àddu rek wane mbégteem ci bi ñu féexalee doomam bile ci alxames bi mi ngi daal di dénk kàddu yi suñu nattaango yi li di Génération FM ca Ziguinchor Khady ngoom lay wuyoo mu ni kon sant na yàlla bu baax a baax bi doomam dellusiwaate ci ay loxoom mu ni itam loolu yépp dogalu borom bi la ba tax na sax kon da koy delloo di ko sant bu baax a baax moom nag jaay la wayjur la ci maire bu jigéen Ziguinchor moom Khady Ngom mu ni kon fi mu nekk nii jàpp na ni mbir mi yépp ci dëggu rekk lay tegu te itam ci dëggu rekk lay nekk te dëgg rekk mooy mujj tax na muy woote kon jëm rekk ci li nga xam def saa su ñu ànd ak suñu xel waaye itam am courage. Ousmane Sonko Bassirou Diomaye fay daal di génn kaso ginnaaw rek bi ñu fa defee 230 jours waaye mu mel ni ci ay seconde rek 335 ñoom nag tax na réew mi fees dell ak nit rawatina file ci ndakaaru ak biir Sénégal ndax nag ndaw yi yëpp dañ leen daal di topp ca ba ñu leen bàyyee bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi jiwaa di waa Vox Populi di ñu xamal ni kon Bassirou Diomaye fay sax yëkkati na ay kàddu di xam ni bég na loolu ci mobilisation association bi waaye itam kontaan na loolu ci jàppale bi nga xam ni ñu leen ko doon jàppale bi ñu nekkee ci kaso bi mu ñuy bàyyiwuñu benn yoon tax na muy jaajëfal askan wi ci projet bi nga xam ne itam gëm nañu ko waaye itam ci li nga xam ne gëm nañu Ousmane Sonko ak moom a tax na mu jàpp ni kon drapeau bi bu coalition Diomaye président danañ ko fësal ca kaw ba mu rek farfe nekk kon ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars atum 2023 ginnaaw kon aljuma ji ñu war a jëno taskatu xibaar yi ngir mën a waxtaan ak ñoom ci seen wàllu projet ak la ñu bëgg